Cheikh Ndiaye maa ngi lay nuyu. maa ngi lay fay. Cheikh Ndiaye euh, nga nekk analyste politique euh, tey jii ban jàngat ngay def ci situation euh, bu chaotique bi nga xam ni Sénégal mi ngi koy traversé lu si sa jàngat. waaw situation bi Sénégal boo xam ne jaaxal na képp kuy sénégalais jaaxal na communauté internationale jaaxal na africain yi ndax ñëpp xam nañu Sénégal dafa di dëkk boo xam ne dëkk démocratie la dëkk liberté la. te depuis quelques moment dañoo gis ay arrestation dem nañ ba naan ay arrestation politique la dem nañ tamit ba gis ni dañu cëngale peut-être benn nit maanaam benn leader bu opposition bu tudd Ousmane jàpp ay nitam tëj ci kaso bi donc dañoo gis ni manifestation yi mu ngi gis un peu partout dans ni daal situation Sénégal actuellement entre pouvoir opposition métti na vraiment te dafa di situation boo xam ne jaaxal na képp kuy sénégalais ak kuy africain ce fait nag euh, il est temps que acteurs yi ñu revenir à la sérénité sinon nar nañ kon ñu Sénégal ci lendemain yoo xam ne lendemain yu catastrophe la nar te loolu souhaité wuñ kon Sénégal dafa di dëkk boo xam ne ñooñu foofu dëkk boo xam ne liberté yeeg droit yi dañ ko yàgg garantie donc dafa di dëkk boo xam ne espace politique bi waruñu ko di ko judiciariser di mêler justice ak politique espace politique bi dafa may acteurs di sànnante ay kàddu te loolu c'est dans l'espace politique donc yoonu justice warul di ko vraiment yàq wala di yàqal ay nit donc moo tax ñu ne actuellement Sénégal moo ngi traverse crise boo xam ne crise bu jéggi dayo waaw Cheikh ñu gis ni dialogue politique bi 31 mais bi lañ koy tàmbale euh, noo gisee dialogue bi est-ce que mën na nekk euh, solution par rapport ak crise bi ñuy traversé waaw dialogue politique dafa euh, gis mu nekk gis nañ ni dañuy commencé dialogue pour jéem a delloo ci jàmm dialogue national gis nañ Tchad amoon na fa gis amoon na Soudan gis nañ amoon na yeneen dëkk maanaam ñu woote ay dialogue pour mën a indiwaat jàmm léegi nag dialogue bi am Sénégal dafa di dialogue boo xam ne ñëpp soxla ko mais ñëpp xam nañ ni tamit dialogue bi am Sénégal ñaari dawal gën a impliqué mooy Macky Sall président Macky Sall ak président Ousmane Sonko te il faut tamit waa pouvoir bi comprendre Macky c'est pas un président de transition c'est un président démocratiquement élu donc président démocratiquement élu bu ñu la falee doo organiser dialogue ba pare toog te bu ñu Sénégalais dialogue bi ci bokk di nga nekk candidat di nga di nga am lii di nga am lële ku ci bokkul maanaam waroo nekk candidat donc loolu dadul dialogue moo tax may woo sérénité ak sincérité wu ak te il faut tamit chef de l'opposition bi ñu am benn ñu ko nangul parce que Ousmane Sonko dafa gis plus de cinq cent ñu jàpp ñu ñu leen di woowee sax les ko jéem ko liquider tey préparé na yoo xam ne pour ko pour mu bokk ci élection présidentielle yi ba pare ko da ngay ñëw ci jàpp donc loolu ça sonne mal à l'oreille donc bu ñu def ci dialogue il faut ñu def dialogue boo xam ne dialogue bu sérieux la diggante Ousmane Sonko ak Macky Sall ñoom ñaar ñu toog ñu waxtaanee jàmm parce que Sénégal yàgg na am ay crise politique diggante Abdou Diouf ak Abdoulaye Wade mais Abdou Diouf danaan jël ay responsabilité moo Abdoulaye Wade ñoom ñaar ñu toog waxtaan donc tamit ñi wër Macky Sall buñ nekk di ko galvaniser buñ nekk ay vacan guerre nañ ko xamloo ak gëmloo ko ni ko fii yaay président de la République yaay njiit réew mi ñëpp nga njaboote donc woowal Ousmane Sonko ñu toog waxtaan ak moom ñu xool yan condition la ñuy résoudre problème yi pour ñu mën a dem ci ay élection ci jàmm mais au lieu de ça ku nekk di brandir di wane ni moom moo yor doole bi moo yor force bi loolu bu amee askan yi donc ñoo ci ñàkk moo tax président de la République son excellence euh, monsieur Macky Sall loolu lañ koy ñaan mu xam ne ñun ndaw Sénégal yi ñun Sénégal yi su ne suñu papa yi suñu yaay suñu mbokk yi yëpp ñooñu ñaan jàmm bi mu dellu te jàmm jooju tamit moo ko yor donc moo tax ñu wax ak moom de manière pérenne wax ak moom ci organiser dialogue boo xam ne classe politique bi dañ organiser dialogue boo xam ne dina permettre Sénégalais bu ne boppam dialogue boo xam ne du ñu écarté kenn ñi bokk ñu ñële bokk ñu déedéet parce que toll nañ xam ne acteurs ku nekk wóolu nga sa bopp ba dugg wax ak sa moroom te loolu il faut mu dañ bu mën a am ci àdduna te autour du table yi ñoo ngi leen di ñaan ñu gën a yokk seen intervention ñu intervenir ni ñu wax dinañu gën a yokk bi Sénégal bi ñu nekk il faut tamit ñu wax situation bi Ousmane nekk mënuñu la tëj te amul benn mandat wu ñu seen terewul day def sa caravane ñu empêché la alors que à def seen caravane bi def leen ne léegi moom ñu invité que ni ko lii ko def léegi doo ko def dëkk bi tamit dañu toll boo xam ne il faut ñu wax la réalité qui existe actuellement dans ce pays sinon buñ ko def ay frustré rek lañ nar a nekk di créé Sénégal tal na leneen lu dul nekk ci di am ay problèmes yoo xam ne dafa nar a vraiment famille vraiment voilà Cheikh aussi est-ce que dialogue bi nee nga lu baax la euh, surtout ci réew moo xam ni dafa nekk ci crise mais euh, dialogue boo xam ni Ousmane Sonko nee na bokku si demu ci leaderu Yewwi Askan Wi ñu baree bari euh, demuñ est-ce que kon dialogue bi am na sens surtout que Ousmane Sonko bañ a dem waaw dialogue bi man de comme ni ma ko waxee woon ci njëlbeen dialogue lu war a am na di pouvoir ak opposition mais il faut pouvoir reculer par rapport à certaines conditions yi nga xam ne opposition bi dafa teg il faut di am Ablaye Wade dialogue yi fi ñu da daan nangu yenn points yi bi teg ñu ngeen deux mille onze bi am na yoo xam ne Ablaye Wade da doon reculer ñu di waaw mën nañ ay quatre-vingt-huit gis ngeen situation dëkk ni mu demee woon ni ñu méttoor da daan woote dialogue ba pare nangu yenn daan demee année Diouf yi ak année Ablaye Wade bi dañ daan dem ba gis ne am na ñu jël une personnalité neutre teg ko au niveau du ministère de l'Intérieur mu organiser élection yi jaar yoon Ablaye Wade dem na ba teggi sax élection yi jox ko une personnalité neutre ñu leen ci élection yi jàmm donc dialogue bi ñu jëm il faut condition yi ñaari acteurs yi mën naa ni sax def pré dialogue pour mun a d'accord ci ay conditions parce que tamit li ñu teg Ousmane Sonko ak li ñu ko bëgg tuumaal ak yi ñu ko bëgg teg kuy waxal yàlla xam wax dëgg fa yàlla jaarul yoon lu jaarul yoon nag jaarul yoon lu ñuy wax leneen te ce fait il faut acteurs yi boobu mooy tax ñu mën a nangul ku nekk moo ñu ne tax Ousmane Sonko nangul Macky Sall Macky Sall nangul Ousmane Sonko sinon na leen yóbbu Sénégal problème yoo xam ne wax dëgg ko yàlla kenn souhaité ko moo tax il faut ñu xam ne dialogue sérieux bi war a am diggante opposition des pouvoir bi diggante Ousmane Sonko le surtout ak le président Macky Sall parce que kii c'est le président de la République que le de l'opposition même bu ko revendiqué wul loolu xam nañ ko communauté internationale bi moo observé le Sénégal voilà euh, Cheikh est-ce que mën nañu wax ni pétrole ñu ne am na ci réew mi ñu war ko exploité yàggatul dara est-ce que euh, jurul fitna bi nga xam ni ñu ngi koy dund actuellement dëgg la pétrole bi xëy na jurul fitna bi mais am na ci impact parce que même troisième mandat bi Abdoulaye Wade bu ko def deux mille douze ñëpp xam nañ ni ablaye de pétrole beeg gaz bi découvrir woon nañ ko programme pare woon nañ ci commencé exploitation mais marché bi yëpp ñoo woon donc loolu xëy na si li taxoon sax mu bëggoon gën a def la ko gérer gis ngeen situation yi ñu yóbbu woon ñu dem ba voilà ñëpp bëggoon ni personne rek Karim Wade la bëggoon jox mu ngi alku du woon loolu ñu dépassé loolu xeex ba ñu képp di toogati ngay def mooy li may wax les institutions sont là et les hommes passent les hommes passent et les institutions demeurent les institutions demeurent loolu suñu classe politique bi ñu nangu ko de ce nag euh, am na ñuy soupçonné ni waa nguur bi exploitation pétrole bay gaz bi war a commencé ay deux mille vingt trois deux vingt quatre bi moo tax ñu bëgg maintenir en troisième mandat toog fii pour mën a exploiter ressources yooyu loolu nit yu bëri waaye il faut tamit ñu am bénéfice du parce que euh, tamit euh, Macky Sall njiitu la boo xam dañ ko fal démocratiquement il arrive au pouvoir démocratique donc il faut ñu organiser élection yoo xam ne comme moom la ñu ko waxee deux mandats wam def na ko dootul bokk ci élection yooyu ñu dem ba mbër boobu ñëw dem bu gañee ñu nangul ko bu gañewul mu nangul ci gañe donc loolu moo mën a permettre Sénégal ñu génn si duute gi lu dugg sinon pétrole beeg gaz bi ñëpp xam nañu source de crise dans beaucoup de pays mais nag Sénégal war na mën a def euh, exemple wane ni chaque situation fekk si ñu wàllu si wàllu yàgg yi dañ mën a génn jàmm parce que acteur bi am na ñu muy toll dinañ toog waxtaan dinañ toog jéem a jubóo dinañ toog jéem a delloowaat xelu Sénégal yi di l'essentiel te l'essentiel mooy Sénégal ñun ñoo ko bokk Sénégal benn réew la il faut ñuy waxtaanee jàmm. Euh, Cheikh est-ce que mën nañu wax ni euh, situation bi bu continuer nii état d'urgence est-ce que état bi du ko décréter est-ce que nekk na loo xam ni luñ mën a envisager la. waaw donc situation bi egg na koo xam ne dégg na dayoo mais état d'urgence nit loolu xam naa ni état moom rôle ak devoir ak droit wu donc du ma ni état dina ko def du ma ni état da koy du ko def tamit parce que état bi moom moo xool situation bi toll ci réew xam ne muy déclarer état d'urgence soit sur le territoire national ou sur les régions donc gis nañu situation bi daal moo ñuy évoluer moo donc il est temps que l' état euh, à la raison comme ni ma koy waxee parce que nee naa man état mooy moo am compétence compétence am amul maanaam beneen mooy xool situation gis nga bi nii la demee mais bu fekkee jàmm dinaa moom moo am force légale force légitime bi nga xam ne force la mais force de répression boobu waroo ko utiliser pour di ko a utiliser ngir protéger leen ngir aar leen parce que waruñu dégg Sénégal manifestation am na wala caravane am na ñu rey ay nit manifestation ak caravane tant qu'il a pas organisation lay signifié dañ ko war a organiser gunge leen ci yoon ñu bàyyi di judiciariser espace politique parce que judiciari judiciarisation espace politique bi moom indi lii maanaam homme politique ci ay kàddu la ñuy waxtaanante ci ay kàddu la ñuy sànnante donc dañu war a bàyyi homme politique bi génn jàpp jël kàddu sànni ko pouvoir bi répondre la par la justice au lieu ñu apporter une réponse politique c'est-à-dire les cadres génn apporter une réponse politique mais déedéet dañ lay jéem a yóbbu ci kanamu yoon ngir tëj la wala ñu toog loolu amul Sénégal waratu fi am amoon na fi ay jamono mais dañ fekkoon ni dépassé nañ ko génn nañ ci sphère boobu ñooñu jëm ne maanaam a ouvert alors que li ñu nekk di gis jamono ji mooy espace politique boo xam nekk di ko am na ñuy dute naan judiciarisation ay nit la pour ñu bañ a nekk candidat ah dix mille deux mille vingt quatre on va voir am na ñuy dute tamit ñu judiciarisation boobu pour vraiment sokkatal ay nit la tëj leen wala pour toroxal leen loolu euh, dafa di loo xam ne du yoon ndax Sénégal bëri na ay organisation des droits de l'homme Sénégal dëkk la boo xam ne liberté yi c'est consacré par la constitution la liberté de circuler donc euh, yooyu yëpp dañuy liberté yoo xam ne Sénégal daf ko au niveau international bokk ci ay convention ak ay charte yoo xam ne ça peut permettre euh, tamit muy wane vraiment jàmm ak liberté yi mu consacré askan bi merci beaucoup Cheikh Ndiaye maa ngi lay remercier bu baax a baax. ah maa ngi lay gërëm di la may fàttali ni Cheikh Ndiaye analyste politique nga.